bismillahi rahmaani rahiim pour sëriñ Moustapha mi ak Cheikh El Hadj mi koy jàppale ak ñileen leen di jàppale nekk sa njaboot wax dëgg yàlla dañu leen di sant di leen ñaanal yàlla ndaxit it yëg nañu organisation boo xam ni def nañu ko ci sa ñëw Tiwaawan fa tabaarakallaahu am na solo lool kon nag yal yàlla may leen wér yàlla jàppale leen ci biir yàlla jàppale leen ci biti fa tabaarakallaahu gannaaw bu nu santee ñépp sunu mbokki bopp jóge ca njaasaan ñëw nañu fi ñoom it di sunuy nijaan nijaay ndax yàlla soxna Mareem Kunta kon yàlla na yàlla def ñu bokk ak ñoom yiw bu ko defee nag ngeen déglu sëriñ bi mu sànni leen li mu leen di sànni ci seen tur yéen ñépp nag bu ko ko jotam mayee nee na ngeen tase fekk moom ci gàmmu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu السلام عليكم tabarkalla tabarkalla xanaa xanaa waxi gunge rekk nag wante farasa ji wax nañu ko tabarkalla waxi gunge nag du ñàkk ndax ñi jëkk a wax ñooma ñaanoon ca at mële pour ma génn defa suma ko woon yéene ndax doy nañu ma ci biir doy ma ci biti waaye ñu ni comme rupture dafa am ci jamono soo génnoon rekk li ci des dana nu yomb moo tax ma nangu ko fa tabaarakallaahu boobu tey nuy waxtaan li nuy waxtaane mooy waxdatullahi azza wa jalla wala waxdaaniyatullahi azza wa jalla boobu ba tey ci la nuy waxtaan waaye it ñu di ko def ci nàqum ganaar bàgg ci sa soxla waaw nàqum ganaar bàgg ci sa soxla mu mel na kon li ñuy tudde gàtt bi ñuy dunde ci kaw suuf maanaa doomu aadama bi muy dunde ci kaw suuf dafa wone ba tey ni yàlla kenn la ndax yàlla dafa war nit dafa dagan yàlla dafa war nit dafa dagan ki war nag pexe amu ci waaye ki dagan pexe am na ci waaw yàlla nekk yàlla lu war la ndax su amul jarul ndax yépp a yàqu ndax ku mënul bàyyiwul lu yàqu moo ko yàq yàlla bu mënul woon kon ba tey musiba am nit itam bu ëppoon li mu doon te mooy dagan rekk kon yépp yàqu waaye yàlla dafa war nit dafa dagan ki war nag du tayyi du dee du juum ki dagan dana tayyi dana dee dana juum loolu moo leen wutal su ko defee waaw su ko defee kenn ku nekk ak ka nga yaakaar ni moo ëpple ci yàlla soo demee ci yahud yi ñu ni Muusa moo ëppale ci yàlla nga dem ci chrétien yi ñu ni Isa moo ëppale ci yàlla nga ñëw ci jullit yi ñu ni Muhammad moo ëppale ci yàlla waaw jullit yi Muhammad boobu ñu wax ni moo ëppale ci yàlla yàlla tagg na ko te tagg ba sorewul ñaari baat rekk la te mooy am nga jikko bu rafet paase wu ko mu dellu wax ko ni ko walaw shi'naa la nadhabanna billadi awxaynaa ilayk ki ñu ni moo gën yàlla wax na ko ni ko sunu neexoon damir ji dellu ci yàlla damirul azamati la waaw lanadhabanna noonu tashdid ji tahdid la yàlla wax na yonent bi ni ko bu bu nu neexoon nun ñi màgg nun yàlla ñi màgg ba ñépp dugg ci sunu biir nun yàlla bu nu neexoon raxas alxuraan ji nu bind ci sa xol mu far ba ku la ne alxuraan nga ni ko luy alxuraan bu ko defee yonent bi dootul xam dara mu ni ko te bu boobaa kan mooy intervenir kenn waaw moo tax sartu nekk ci kaw suuf ñu ëmb la imbi la nàmpal la feral la jàngal la dox dugal la jàngukaay jàngal la liggéey wutal la kër bàyyi la nga màggat nga faatu ñu suul la te la ci ni waruloo danga nga dagan rekk soo ci bàyyee xel nag dana am foo mën a jaar ba dund te doo saalit doo yàq waaw mu mel ni kon ñaari kilifa lañu am te signé nañu ñoom ñaar seen convention su ko defee ci wàllu jeneer daa jeneer ci yàlla yi jàngale doomu ca la bokk sëriñ Babacar dina ko faral di tudd ci xasidaam yi ñu bare xamuñu lan la waaye ci méthode supérieure yi yàllay defare yóoru nit janeer ca la bokk waaw janeer ca la bokk sa janeer suufee ba mu ëpp sa dund suufee ba mu ëpp bu sa janeer kawee ba mu ëpp sa dund kawee ba mu ëpp waaw haja qalbi من خيال قد سرى وثباني قد طفى وما طفى إلا طيف الكرم قد جفى طيف الكرم جفا وما جفا إلا ضيف الكرم سف سبحي الجسم السفاف al shafaaf doomu aadama bu yàpp nekk ci yaramam ak yax ak siddit te bu taxawee ci sa kanam nga gis la ca gannaawam kooku jaaduwul wante am nañu ko am mooy ñii yàpp dul gàllankoor siddit du leen gàllankoor yax du leen gàllankoor ñooñu bu ñu taxawee ci sa kanam ngay séen seen gannaaw waaw safa sabaxi al jismu shafaaf waaw كأن كأن شبحية ملقوط المفعوس كأن شبحية ملقوط المفوز بل قد صار منعدما من بعد تكوينه mu ni ma raxma tadaafuri aljamaati alayhi kon jar na yërëm kon jar na yërëm ku mbooloo yépp wuy si di fett su ngir yow di tudd sa tur di forme ay daayira di bindule ay lijaasa di tabaxloo ay jàkk di wérdule di wasifa nga jékki-jékki ni leen sama jëmm ma nga ca àllukaay ki ngeen di waxal du moom moo tax ñu ne xeet la ci tayu moo tax ñu ne xeet la ci tayu ñu ne tayu itam xeet la ci wilaaya wallahi عامدا والله والله والله mu mel na kon waxuma bu jëkk de waaye bu mujj laa wax aadama xawwa jaan ji garab gi ñu netaal ko ndax jangeer ñu netaal ko ndax janeer aadama ni sama autorité xawaa ni sama dignité jaan gi ni sama benk ñenke garab gi ni sama secret naka ngeen bëggee jàmm am ci àdduna la raxata fi dunia wala najaata min annar nous avons été conçus dans un climat de suspicion. waaw ni sama autorité Hawa ni sama dignité jaan ji sama benke ñenke garab gi di sama secret te ca gannaaw ñaara nga toog di signé benn convention ku ñuy wax yàlla ak ku ñuy wax iblis bu ñu signé convention ba ba noppi mu wóor iblis ni ko yàlla du war signature am te la firi ko nag moom iblis wax yàlla ni ko la aqudanna lahum sirataka almustaqim iblis ni ko comme jot na signature bi danaa fexe ba sa benn jaam dootul agsi ci yow fekk iblis tuuti la xam yàlla xam na lépp mu ni ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan gis nga asiraatul mustaqim boo ko miinee na koy firee du dëppoo ak la waaye nekk waaye asiraatul mustaqim mooy lépp jàmm ndax jaam bu jàddee dugg pax waaw ñu di ko firee firi cosaan yoon wu jub suñu mbokk chrétien yi di ko firee al manhaju ruuxi ngir mi ruux di topp ba sowe waaw bu ko defee ñi ci des nag benn philosophe walla inventeur u internet ñoom ñoo ko tudde itinéraire balisé nga gis ni dañu objectiver la subjectivité te c'est une nécessité qui s'impose parce que subjectivité kese kese doo dem objectivité kese kese doo dem kon foog nga objectiver subjectivité subjectiver objectivité waaw moo tax ñu ni itinéraire balisé waaw ak la mu ca teg di waat moom iblis summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim di soow rek woon yàlla ni ko yaa defar nit waaye boo ma bàyyeeg moom dinaa fexe ba won la ni ni ma nekkee traître noonu la nit nekkee traître ma ngay xuloog yàlla waaye fekk na iblis tewul mag ñi ndax seen copain la iblis tewul mag ñi ndax seen copain la sa copain nag balaa ñëw ci kër gi xam nga li mu fi mën a yàq nga nëbb ko balaa agsi moo tax bu xëyee ku muy ziyaare ji ci mag ñi balaa agsi fekk mu dëpp potu ndaam jël kurusam def ci poosam jël sajaat bi muy jullee lem ko denc te ñett yi rekk la mën a jaar pour jot ci ñoom xam nga iblis bu deful ci yow deret yàqul sa kurus yàqul sa sajaada dafay nuyoo rekk toog bu naanee kafe baax na waaye dafay dem yoonam waaw moo tax dund ci kaw suuf xel rekk doyu ci waaye xel dimbal la ci ndax alfitra fitrata allahi allati fatara annaasa alayha am na luy xam yàlla ci nit jëkk xel xel nag ndimbal la ci ndax bu amul àdduna tukki wante am na luy xam yàlla ci nit jëkk xel mi ngi mel ni liir lu ko jàngal ci suween du xel fitra la kooku diggante yàlla la ak liir bi waaye du diggante ndey ji ak liir bi nde kon ndey ji du tal ngénte ne kon ndey ji dutal ngénte ndax njàngalu nàmp ñetti at dana ko ca fekk moo tax yàlla yombalal ko ko dox digganteem ak liir bi jàngale ko fitra te bañ ko jàngale xel ba moo tax coow li bari na ci ñii ni xel lan la ñii ni fitra lan la ñii ni yóor lan la waaye fekk na doomu aadama aalam la univers u lëmm la li mbuusam tuuti yépp li yàlla denc ci moom du jeex waaw te kenn ku ci nekk sañ nga wut koo yaakaar wante itam yàlla it sañ na kenn ku ne ñamu boot yàlla di ko jëllu di defal njaboot lu mu yëgul sañ na ko a seetal ni yonent bi toll su jékki jëkki ñu won ko ni ko am na lu yëngu ci asamaan te dafa mel ni xew-xew bu doy waar la te moom xamul lan la ndeke Saad ibnu Muaaz moo faatu te amul benn yonent bu faatu bu jaral yàlla mu yëngal asamaan nit kese ku dul yonent faatu yàlla yëngal asamaan ba ñu defe ni dafa am luy bëgg a xew te du yonent te du waliyu waaye jaam bu yàlla sopp la rekk moo ko soppal boppam saad bnu muaad wa ma htaza wa ma htaza arfullahi min mawti halikin samicna bihi illa li saadin abi amri ma tax waykat ba wax ko mu ne ñu ngi soog a dégg jaamu yàlla bu faatu asamaan yëngu benn yoon bii la kon nag ndeke yàlla sañ na lu ne su ko defee mbooloo yi bu ñu jiitalee loolu rekk dafa dal di am solo ndax nit am na waxoon naa leen ko fii am na lu ñuy tudde xubbul nit dee def ko tiital ba mu ëpp te xam na ni mënu ko jàtt mais lu tax mu tiital ko mooy am na fu mu jaar fu mu jëkke woon ba mu jógee foofa la jaar ci biiru ndey génn si ci àdduna fokk am na lu nekk ci moom luy fàttaliku booba te liy fàttaliku booba moo koy fàttali itam li nara ñëw ëllëg tax coow yi ngeen di dégg yépp xubbul moo ko waral ko waral ah man dee danaa dee waaye bu ma dee daal waaye waaye kon sama tool bi fu muy mujj danaa dee de waaye daal bu ma dee waay bu sama oto bii di mujj xam naa ni danaa dee de waaye bu ma dee fu sama doom jii di mujj gis nga la ko xalaat loo nit démb la li ko koy xalaat loo it ëllëg la bu ko defee loola koo ca yen yen bu diis rekk tooñ ko moo waral xëccoo yi moo waral saagante yi te boo ko firi na mu waree moo dee atte ci cadre diine da ngay dellu ci ñaari baat rekk moo di ad diinu an nasiha الدين النصيحة kaay nu wéet ma digal la lu baax yonent bi nee na loolu mooy diine kaay nu wéet ma jëw diw kooku innama najwa min ash-shaytan innama najwa min ash-shaytan dégg naa benn nit bu wax waaw kilifa boo boo làqoom moom wax ko ba noppi waru ko génne ah kay bu ko mbooloo ma moomee foog mu génne ko waaw parce najwa la innama najwa min ash-shaytan te sëriñ Babacar si nee na sama fenkat nee na du yendu ker ma yendu naaj mukk nee na sama fenkat du yendu ker ma yendu naaj waaw bu ko bëggee def rek ma weer ko te ba mu jëwee ba noppi rek mu noppi waaye bu demee di wuti fu mu far te fa muy faridu la fa may jàmm nga génne la ngeen waxoon waaw ah, waaw innama najwa min ash-shaytan waaw moo tax góor gu mat di déglu waxam la ndax li Senghor waxoon ni wali yu bare na waaye wali yu bu am fayda mu ni Babacar Sy rekk la waaw moo tax waxam jar na di déglu sama fenkat du yendu ker ma yendu naaj moom la daan wax boo wéeteeg moom wax ba dëdd am lu mu dégg mu woo la ni na nga dellu si boo ñëwee fekk saal ba fees dell mu ni li nga ma waxoon waxaat ko bu ko defee fu ne nga tànq bàyyi bët te du tax mu sotti waaw gis nga yooyu kilifa yiy wut mbooloo dañu ko miinul waaw ndax dañuy fàtte ni mbooloo mi du jariñ yàlla mooy jariñ waaw te yiw it ci yàlla naka ngay jëriñe mbooloo mënul nekk mënul nekk moo tax sama turandoo daan wax ni ngénte caaxaan dëju caaxaan sëyu caaxaan juboo caaxaan bu ma ci kenn woo ndax dootuma liggéey ci cadre aada ci cadre xaqiqa rekk lay mën a liggéey kon na ngénte caaxaan tëju caaxaan sëyu caaxaan ak juboo caaxaan nee na juboo caaxaan la muy jur ci musiba moo ëpp musiba mu jëkk ma ndax kenn ku ne fekk na yaa nga am fiir goo fiir te du sotti dafa dul sotti xamuloon yi gis nga wax eh, boo nekkee ci diine tey nit ku ñuul te diine ji jóge ci kaw asamaan te nga jàpp ni ñi la ko jox nit ñu weex lañu ñu ñëw coloniser la ña la indi seen xam-xam ak seeni pexe te nga yëg ni nit ñu weex lañu la muy jëkk jur ci yow mooy nga jàpp ni ñoo la féete kaw jàpp ni yow yaa féete suuf bu ko defee mu jox la lu mel na yëg-yëggu sécurité waaw mu mel na yàlla jaar na ci ñoom pour indil la diine kon ñooy sa sang sécurité bi nga yaakaar ci diine ñoo la koy jox ñi la coloniser itam ndax defar nañu oto jaay la suukar jaay la limonade da ngay jàpp ni ñoom itam am na côté buñ la gëne mu jur ci yow yëg-yëgu sécurité fekk ñu di la coloniser soo demee ba màgg ci tuuti nag ci ngay commencé di laaj ndax ñoo la gën wala gënuñu la li ngi metti lu metti la nga xalaat ni nit ku ñuul nga te nit ku ñuul dañu ko gën ñi ko indil diine ko gën ñi ko indil limonaat ko gën soo demee ba dajeek mag mu baax nag mën na fexe ci yow ba nga dëgg ci diine xeeb ku weex mën na fexe ci yow ba nga dëgg ci limonaat xeeb tubaab bu boobaa nag la njàng di war ci yow mu wóor la ni kenn gënatu léegi foo àggul rekk yow la waaye lu jafe la gis nga mag ñi seen mbaax dafa ëpp te Ibnu Khaldun wax na ni histoire nee bu defarul jamono bi nga ne nee na bu ko tudd amatul njëriñ histoire bu defarul jamono bi nga nekk bul ko tudd amatul njëriñ su ko defee mag ñi seen mbaax ak seen dëgër moo àgg ci bu ñu daan wuy ji seen boroom daan nañu bàyyi tóokóor ya am ak seen doom daan nañu bàyyi kër ga ñu am ak seen doom daan nañu bàyyi itam ak lañu am ci alal ak néew ak seen doom waaye téere ba ñu fonk ilimaan ja lañ koy donnale waaw loolu moo daloon xalilu bnu ahmed waaye yàlla itam dafay caxe ba cheikh sama turandoo di bëgga dem te ni sama njaboot bu ñu toogee fas dañ leen di gaañ looloo tax mu ni nañu dellu saxra waaye ba ñu àggee saxra la ñeneen xeex ak ñoom rey leen loolu jaxu yàlla la xalil ibnu ahmad ak li mu amoon ci may ci tool ak kërëg alal ak jurëg ba muy dem jox na ko waa kërëm waaye téereem bi ñuy wax kitaabul ayn dafa dem ba ci allays ibnul mudaffar mu donnale ko ko te téere la rekk te booba téere dañ koy bind ak loxo kenn du ko muul nga xam ni ci la coono yépp wante bi mu faatoo Layth ibnul Muzaffar jàng téere ba ñu di ko wax kitaabul ayn ci la ñu jëkk a defe dictionnaire ci suñu àdduna bi moom sax wax na ni du moo ko jëkke waaye wax dëgg yàlla li ñu miin mooy moo ko jëkke ci àddunay lislaam waaye nee na ba mu jëkkee seen lu ni deme ci hind la ko gise woon moom mu ñëw tëral ko ci cadre l'islam tudde ko kitaabul ayn muy benn téere bu nga xam ni wóor na ko ni mën na ko indi léegi lu ma dix milliards ci alal ndax naka la ko umara yi ak salaatin yéeg muloog yéeg ñépp déggee ñépp dañu yónnee kenn ku ne proposé prix bu nga xam ni jar na lu nekk pour jël téere ba waaye fekk doon na le ko al layth imaamul layth ba mu gisee téere ba moom it nattoom dikk mooy waxatul ak nit liggéeyatul defatul dara ndax jàng téere ak yéem ko ba soxnaam defe ni bopp bi dafa wëlbatiku yàlla dogal bu la dee may yiw du ko def benn ñu may ko ñaareel moom imaamul Lays ñu may ko ñaareel jabaru ñaareel boo xam ni tabarkalla moo gën a jekk aawo bi mu faf boole ñaari jotati jote di jàng téere bi ak jote di seyt ñaareel bi yàllaate mu génn génnee ba dellusi gisatul téere ba mu wax aawa bi ni ko boo ma joxee téere bi ma fase ñaareel bi awo bi xool ka ni mu woo ñaari mag ni leen dem leen ca fa sama ñaareel nekk ngeen wax ko ni ko jéggal naa ko ndax téere ñu dem ba fa ñaareel ba nekk ñu wax ko ko ba ñu dellu seeni ko famille ba d'accord na ci mu ni ndaw si indi téere bi bokk ndeke ndaw si lakk na téere ba li xalilu bnu ahmad doon daw yàlla indi na ko yooyu ay cax la waaw ay cax la yu yàlla di wone ni nit dafa dagan waaye waru moom rekk moo war moom yàlla moo tax mu sañ yenn yi moo tax mu sañ yenn yi te mu jëfandiku loo xam ne boo amoon kattan rek di nga fayu sëriñ mu niiru daan na wax ni bu yàlla wàccoon Ndakaaru mais gis ku ko defal ndékki lu baax waaye daa gis am kàcciri du ko wut pour caw ko ndax sañ rek eh imaamul Layth wax nag ni pexe amul li nuy jéem mooy li ma ci mokkal ak kenn ku ne ci yéen mas ci yér la mu ca jàpp fàttewu ko ñu jéem ko bind mu nekk coono bu rëy ndax imaam Xalil nag dafa barewul morom gis nga fiq du maninam te moo def muxtasaru Cheikh Khalil mag mu ko jàng doyal ci fiq te du maninam nga xam ni bokk boo demee ci maninam kenn melul ni moom waaw moo tax Cheikh Al Hadj daan na wax ni ah yitte jamu ca def ak bés yamu ca yàgg mel na di bu doon Sénégal it ñii fi ne man ko moo tax sunu mag ñi ëpp nañoo xeeb waaw ëpp nañoo xeeb ndax dañu sopp yàlla te boolewuñ ko ak am am tubaab sopp am am te boolewu ko ak yàlla loolu la looloo tax ba waa xarbu yónnee ca di wut ku leen jubbanti ci xalaat moo tax góor gën ni leen xuliqtu min tiinatin xamqa te ca kanam lañ koy xame mu ni ko yéen tubaab ci ban bu dof lañ leen bind te ca kanam la ko nit ñi xam nañ la soloo kawas dañ la solloo lunette nañ la jëndloo limonade dañ la jëndloo automobile lu ne nañ la ko wut wut loo te soxlawuloo ko mu dellu ci la góor ga waxoon ca Liban Khalil Matran الفرس الوفي والأوتوموبيل الخاين dafa am fasam di ko doxe soxla waaye booy dox sa soxla ci fas doo dox lu ëpp soxla ba ba fas wa daanoo waa quartier ba yërëm ko jëndal ko automobile faf toogatul mu tudde fas walla fidèle tudde automobile ba le traître te danga koy ree waaye maanaam mu rëy ngi ci biir tubaab dafay tax nga yokk sa soxla te ku yokk sa soxla yàlla dootul am sa wërsëg bañul doxini jamono waaye commerce bu mu ëppal bu mu ëppal ba tax loolu ndaw ñee ko moom ndax dëgg la nag ndaw toog waru ko waaye soxla lu ko amalul njëriñit waru ko de ndaw moom bu amul yitte booy ba bàyyi ko ay sëb nu Mariam moo ko waxoon la sëriñ Pap Malik junju léegi Iisa ibnu Maryam dafa wax ni tepp teppal géej nee na ku bejjaaw la jig waaye nee na xóot xóot ba mooy cëru ndaw waaye ndaw lu yem ci tepp doxul waaw moo tax expédition bi yonent bi mujj def wuy ji boroomam daf ni buñ ko tànnal ku am lu ëpp ñaar fukki at nee ndax ndaw rekk mën a venger deewu bàyyam yonent bee ko wax ne ne mag dafay nekk xakim ba mu ëpp te boo nekkee xakim ba mu ëpp doo venger nee ndaw nag buñ ko nee kilee rey sa baay yitteem yépp mooy rey su ko defee tubaab yi sax ci yi jamono ñu nga ca a jaaxle ndax léegi wóor na leen ni ni civilisation di dunde noonu lay dee te am na ay siiñ yu leen jaax am na siiñ yu leen jaaxal daje nañ ci daje yu bare ci yi jamono bokk na ci yi leen jaaxal nu ñuy def ba ndaw yi jariñoo réew ma ñu ni nag dafa am lu mu feeñal ci ñoom mooy boo mosaan dem tugal dañu daan sopp ñaar di toog ci teraas yi di waxtaane lu ne léegi étranger yi ñoo koy def waaye ña dëkk ci réew ma bëggatuñu ko waxtaanante sax bëggatuñu ko ba léegi ni jigéen daan def bu wàccee ni jëkkër ji ñu jaari restaurant bàyyi nañu ko léegi bu ñu wàccee ñu ngay jubal directement seen kër takk seen ndigg defal seen ñaari nen lekk ko reetaan seen doomu berantal tëdd jot ñu tëdd te bu jëkk daawuñu ko def yooyu yëpp ay signe la ci civilisation yuy glissé ah Maodo tënk ko ci ñaari baat nee na suukar si lënd na xol yi suukar si lënd na xol yi xisan wa maanan حسا ومعنى waxante nag bu neexatul soxla dafa not waxtaan bu neexatul soxla dafa not mu dellu ci li yàlla wax yonent bi maanaam tuddoon nañu leen ñu ngi di aksi wallaay tabarkalla tabarkalla mu xaw mel mu xaw mel ci li nu waxoon léegi ndax nit dafa dagan yàlla dafa war dee dafa mel ni àdduna xol rekk moo ci takku fa tabaarakallaahu ñu continuer waxtaan wi waaye nuy bëgg rekk ci daara yi fi daje waaw ndax dama amoon benn wëllëre tubaab ku am àll wala ndax agrégé la ci wàllu histoire agrégé la ci wàllu histoire doctoresse lettre la man nag li ma boole woon ak moom mooy médecine ndax médecin la woon ca njëg léegi professeur la ca Sorbonne mu fekk ma ci waxtaanu critiquer sëriñ mu ni ma bu ko defati ma ni ko lu tax ni ma su ngeen demee ba ca kanam di ngeen xam ni politicien taniwul sëriñ waaw ma xam ni ndeke xeeb sa cër mooy tax ngay naw ku jaru la naw waaw ba tax na Senghor daf ma doon tooñ yónni Doudou Gueye médecin ci man ni ko waxal Cheikh ni ko s'il le veut on va mësagul gis parti bu juddoo ci daara te la ñu defe suñu parti bi ñaari weer la am élection yi ñëw ñu battre Senghor bu wóor pour wax la ni nit du xeeb boppam waaw mais itam gérer réew mi taxul woon ndax ñu gérer le réew moo gën nga gérer réew amul werante te kilifa yi ma ko wax du ñu juum mukk ba ñu ne sàcc nañu victoire u PSS kilifa yu màgg ma gis ni ma moo gën ni ma ndax réew mu tubaab bàyyi bees ku ko gérer bu njëlbeen ga neexe it mujj ga du neex moom la wolof di wax ne musiba bu dee door dafa neex waaw musiba su dee door dafa neex waaye soo demee ba ca mujj ga ca ngay yëg wa bu ko defee li ñu doon wax léegi mooy rekk yàlla sañ-sañam mooy wone ni nekkam lu war la doomaadama ñàkk sañ-sañam mooy wone ni nekkam dafa dagan rek su ko defee nag xeetu tëkku bu nekk yàlla tëkku na ko doomaadama doonte donte digal na ko yiw yu bare terewul dëggu na ko ba tey eh, ci weer wële paase savant yi ci àdduna yépp dañu tëye seen nom ndax tiit ndax yépp bu ñu yëg xeer wu jóge ca kaw asamaan war daanu ci suuf si te bu daanoo ci suuf si mooy tukkiteel àdduna mooy xeer yi sunu boroom tudde ci alquran xaasiban afa amintum man fi sama an yursila aleykum xaasiban yàlla nee na mu tukkal àdduna jaralu ko yenn effort yi ne mën na yebal xeer bu ko tukkal bu ko defee savant yépp nag jonkan ak yi ñuy xoole asamaan si pour ragal mu daanu ci kaw suuf si ba ñu demee ba gis ni jàdd na wut seetul suuf si lenn lañu xalaat mu fere suuf si waaw léegi bu ko fere luy xew ñu ni kon dina am ñaar fukki weer ak ñeent yu doomu aadama dootul gis leeru jant bi te feresu rekk la ba tax na kon na woote de waaw su ko defee doomu aadama ci diggante rafet njort ak ñaaw njort ci lañu ko bind waaw moom la Sidil Hadj Malick daan wax ni di lekk sa xel di teey moo gën di lekk sa xel ni rëtaax ndax charte bi ngay dunde ci kaw suuf moo laaj loolu xam ni buur bi nga amal affaire benn xeeram alak na sa àdduna boo ko am loo bàyyi xel afa amintum man fi sama an yursila aleykum xaasiba fa sa taalamuuna kayfa nadiri moo lay won ni lu nekk sañ na ko sunu bàyyi bu ñuy wax sëriñ tijaan si nekkoon ca jagsaaw ku soppoon xikma la waaw te it ku bari woon lu muy gàgganti ndaw la waaw mu fekk ma maa ngi am ku tooñ tooñ bu metti ma di ko jàmbat mu ni ma walakin mën na ni walakin mën na maanaa lawla nabiyu rasulullahi laxturimu bil axshabayni walakin mën na min karami xam nga yonent bi bokkoon na ci yi mu gën a fonk ci boppam njañam daan na defar njañam ba mu rafet waaye magi Quraysh yi am alal daan nañu yebal ay ndaw neexal leen pour ñu def jonkani nag yile ci njañam may am ci bés yàlla ñaan ko mu bàyyi mu dëppale ñaari xeer yi leen tiim ñu riitale leen yonent bi ni ko ëpp naa def ndax am na ci ñoo xam ni samay am na ci ñoo xam ne samay taalibee ngi ci seen digg kon nag lii ñu ma def jarul nga riitale leen لولا النبي رسول الله لاخترموا بالأخشبين ولكن ولكن من ولكن من من كرمي moo tax wax la sunu maam jëlee xaadi ma jaxate kay la mu waxoon contradicteur am ba ni ko si vous n'êtes pas rhétoricien fermez votre gueule waaw xamuloo ni wax dafa war di tegu ala ususi mantiqiya lu ko mooy jëmul fen waaw sëriñ Babacar Si nee nga yey moo gën nga rey ni nga yey moo gën nga rëy xaaji maxtar cam ne ñaar rekk la kenn mënula yey ki néew xel ak ki néew jom nee na kenn mënu leen yey ne ci xuloo ngay dëkk ba àdduna tukki loo leen tegit rekk mel ni yëguñu ko ndax gàtt su ko defee mag ñi seen chance mooy xam seen bopp boo xamee sa bopp ndax Cheikh El Hadj dafa répété dafa répété lu mag ñi daan wax dañ ni fu xam-xam yem ñu ne xam-xam a ngi yem ci xaw ñu ne fu xereñ yem ñu ne xereñ a ngi yem ci tëj ñu ni fu faju yem ñu ni fajoo ngi yem ci ngay seet li ngay lekk bala nga ko lekk seen chance yépp mag ñi ci lii la ne moo tax sëriñ Mansour junj na ko ci burdatul madih gis nga xaal ak xaal ak xaal xaal bi firi situation mooy ba ca burdatul madih waaw xaal bi firi dimension mooy ba ca xasida sëriñ Babacar Si ak xaal bi di firi choix tànn ma nga ca raaya sëriñ Babacar Si ba ñetti xaal yi la mag xaal bi firi situation aadat ka la sirri bi mustatirin an il wushaati wala daai bi munxasimi du dangaa yeddaate rekk sama situation dépassé na la ah te it nëbbuwuma fi misti ndax cofeel jekkadiwul nëbbuwuma misti yi ndax cofeel jekkadiwul jéggal naa sa médecin itam ndax sama jàngoro mooy pas-pas waaw adat ka xaaliya laa sirri bi mustatirin an ilwusaati wala daa'i bi munxasimi jàngoro cofeel bu tegu ci jàngoro pas-pas bu tegu ci cofeel naka la ko médecin di faje mënul nekk boobu mooy xaalu situation wala xaalu choix yaa muqtada alxaali yaa muqtada alxaali fi xarfi nidaay wa yaa giyaasa kulli munaadin addahu wataru jaraa'iyan kooku mooy firi choix yàlla mënuma tànn tànnal ma loolu ku ne sañ na ko ah yaa muqtada alxaali fi xarfi nidaay bu ma nee yaa rekk pour nga tànnal ma tax ndax mënuma tànnal sama bopp wala buy firi dimension xale yee ko moom ndaw la yont yàlla Isaa ndaw dafa ñeme xóot-xóotu a yem ci tepp ndaw dafa ñeme xóot-xóotu géej te bañ a yem ci tepp-tepp ndaw lu yem ci tepp-tepp mag a ko tane waaw bu ko defee ci weer wi paase def nañ ci daje bu rëy ca tugal waaye ñu ngi ko tënk ci ni ndaw dimension confrontation waaye fekk na Babacar si jëkk leen ca waaw ko wax ca ay ni yàmb ba ca Cheikh أخل لومي لا تطنب فيا لك من ذلي عداك عداك الحال والحال واسع ku tollu ci aventure toll ci confrontation ci dimension mystique walla dimension politique walla dimension économique boo ko yeddee yàq nga sa yeddeel parce que boo ko téyee du fu mu jëm adaka adaka alxaal walxaal waasio waaw mu mel ni ñetti xaal yooyu ñoo fi nekk su ko defee méthode ba cay tane ci doomi daara mooy wattandiku ñaari yëf li ñuy tudde corruption sentimentale baax baaxlu baax baaxlu baax baaxlu baax baaxlu ndax ñu ne wëliyu nga ba nga xëy nax ñépp kooku mooy corruption sentimentale bi ci des mooy démagogie xumbeen xumbeen xumbeen xumbeen tabarkalla ndax ñu ni yaa fi nekk fekk nekkuloo fa yii ñaar baaxul ci dara moo tax sëriñ Babacar daan wax ni mënuma nekk seen copain seen sëriñ laa mën a nekk bu ngeen bëggee noonu la bu ngeen bëggul ngeen bay mësul lëng nit mësul doqonteeg nit joxante loxo rek waaw te it bu mu nekkee nit mënula wax ba mu tiit ci ndax xam lu tax dafa am sunu baay bu kàccoon waaw boo xam ne Sëriñ Babacar rek la bañ xëy ca yor yor naan mi ngi mëtalul sax juróomi ponk ci lislaam yi ndax demul mag ñu nettali ma ko ma bu ñu ko wax mukk góor gi ñu ba wetu midi mu agsi moom ka wax loolu toog ci saal bi noonu sëriñ Babacar génn si toog janoog moom xool ko ni ko النظر إلى وجه المؤمن خير من استقبال الكعبة te kenn waxu ko ko mu ni ko xool kanamu jullit bu njullitam dëkku moo ëpp yool jublu kaaba gi moo tax ku dëgëroon ci position waaw amul lum ca ragal ñi mu yar sax waxuma góor ñi waaye jigéen ñi génne leen ci seen position beneen histoire la mas naa dégg soxna sukkan wax ko ma di ko tooñ ni koy ba yàlla jàpp la mu ni ma buma ma jàppee lan la may manal mu ni ma jaamam laa rek bu ma yóbboo aljanna jaamam la bu ma yóbboo safara jaamam la amul leneen lu ma mën a def nag waaw te looloo am te noonu la ko gëmi noonu la ko gëmi waaw ba moo tax mag ñi ndeysaan Sëriñ Alioune Guèye xale yi dañ ma daan wax bu ñuy weranteeg moom duñu bëgg nga ñëw ndax daf lay rus waaye boo ñëwul nga gis mu summi mbubb mi ba dese forom te ci wàllu xam-xam doo xam ku koy mëna raw waaye dinga ko fekk mu toog di werante xale yi ba dafa ñàq tooy ki ko gënoon a lëjal ci kër gi mooy ëmat loo waaw ak Moustapha Lo li ñu daan won Serigne Alioune Guèye non Serigne Alioune li mu gën a bañ nit ko attaqué théorie Maodo bu ko defee mu ne tey mu dee ko de xale yi déggoo ci suuf rek bu ñëwee rek ñoo attaqué benn mu daldi di summi mbubb ma wékk ni ma ngay défendre position Maodo ñoom ca daan sonn Serigne Moussa nee na ci karaama Maodo yi biir la bokk ndax moo gënoon a tuuti ci ñun te róof sàkku cent kilo yëkkati ko du woon dara ci moom ak ni mu xiibone ak ni mu tuutee ndax yéeneem rekk ku bare woon lu muy tawat la waaw ma am na bis ñuy waxtaan ci ni mu xiibone ba tudd gàncax gu ñuy wax njàndam amul ma ko lu tax gëléem bëgg ko mu ni ma fas dafa tedd wante gëléem dafa am jom mu ni ma te feebar yépp gëléem tooy la ci gën a ragal ndax xam li ko war ci boroomam mu ni liñ koy yéen ëpp na te balañ ko ko yéen mu yës ne liñ ko yéen ëpp na te balañ ko ko yéen mu yës nee na buy sippi bala sippi yës mu ni ma tafasul yéene xañ borom loolu boromam mu ni loolu tax mu bëgg njaddam waaw ndax dafay faj tooy xam na ko mu mel na nag mel na nag seen yitte moo nu fi bàyyi seen pas-pas moo nu fi bàyyi seen xam-xam moo nu fi bàyyi jaawale nag barke xaqiqa ak barke aada baaxul dégg naa ci sëriñ Babacar Si mu ne ca ndar sa bàyyi sëriñ Bachiru Mbakke daf ma waxoon ni barke dafa yàq ak bokk mu ni gisuma lu ko gën a jaar yoon barke dafa yàq ak bokk maanaam barke aada barke aada dafa yàq ak bokk Sëriñ Aline Gueye nee na dafa am ku ni Maodo yal na yàlla yokk barke bi ne Maodo waxu